Touba ca kanam nooru daara yi nii tey mu siwaat ci li nga xam ne moom mooy leeraayu dëkk bu sell bii di Touba loolu mas di doon yitteem tax mu indi lu toll ci ñaari junni lamp yu manqué ñeent fukk maanaam 1960 lamp yoo xamante si nii fas na ko yéene installé ci dëkk bu sell bii di Touba. ginnaaw bi mu fi nemmeekoo lëndamaay bu méttee métti ci jamono yi li génn loolu la tax Touba ca kanam tey mu génnaat ci beneen fànn bile ngir leeral dëkk bu sell bi di Touba. Touba ca kanam bi mu tàmbalee ba léegi loolu xelam mi ngi ci musu cee jóg di ci dox ay jéego daaw commencé nañ ko ak làmp buntu kër yi ba indi woon ci lu toll ak junni ren ñu yokk ko indi ci lu toll ak 3000 lu jëm nag ci lamp poto lamp yi dañoo gis ne moom jafe bu rëy la. boo xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi ci ak lëndamaay gu metti ñu ne kon ren nañu fexe ba programme Touba ca kanam ñu dugal ci lu jëm ci làmp yi jëm ci poto lamp yi bokkut ak lamp buntu kër yi ci biir loolu nag ci la ñu commandé luy tolloog 1960 lamp doon ñaari junni yoo xam ne manqué nañ ñeen fukki làmp laataa ñu ciy dugg nag ni ñu baaxoo def mooy dem ci ñi mu ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a seqal ñëpp ndax xam ngeen ne éclairage public dafa bokk ci domaine yi ñuy wax domaine compétence transférée euh, ci commune yi ñoom ñoo ko war di toppatoo. moo tax laataa ñu ci dox ab jéego dañoo dem ci commune bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom biñ ci jógee ñu dem Sénélec am nañ ci pàcc ndax courant la ñuy wax ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom dem préfecture sous préfet waxtaan ak ñoom. ci biir waxtaan woowu nag ci la ñu génnee woon ay xalaat ba xam ban modèle lu lampe moo gën ak ban tibu lampe la ñu war a jënd. parce que am na yeneen lampe yu fekk fii yu ànd ak ay horloge xam nga jamono day dox. ñoom nag seen liggéey li tax mu neex moo di dañu ànd ak jamono ndaxte làmp yi ñu fi andi làmp yi nga xamante ni bi la bu leeree day fay maanaam bu demee ba naaj bi jant bi commencé jóg rek. moom capteur crépusculaire boobu mu nga xam ne moom lañ ko doté dafay signaler lampe bi rek lampe bi daal di ne kamaj fay su demee ba mu lëndam ba mu toll fi nga xam ne war na tàkk tamit rek day daal di takk loolu bokk na si li nga xam ne ni dafay sakkanal énergie te xam ngeen jamono bi yëpp ñu ngi wax si affaire courant cherté bi ak yooyu te euh, lampe mbedd commune moo koy gérer moom tey jii bu ñëwee nekk partenaire commune nekk si wetu commune si ndigalu sëñ bi fas yéen àndante commune bay waaram si commune bi parce que dëkk si dëkk bi tekk fi dara ko gën. ndaje moomule firndeel nañ fa bu baax a baax ne éclairage mënul ñàkk ci li nga xam ne mooy benn dëkk ndax ku ne xam na ni insécurité bi am ci dëkk bi jamono ji jéggi na daya lool ndax ku seetlu Touba di topp actualité yi di nga nemmeeku fan yi lañu génn ay xew-xew yu ni mel yu doy waar yu am ci dëkk bi ci ndaje mi ñu mën cee jàpp ne éclairage bi nga xam ne moom la Touba ca kanam fas yéene indi ci dëkk bu sell bi di Touba dina tax bu baax a baax li nga xam ne moom mooy sàmba boo yi mën a wàññeeku lool ci dëkk bi luy jëmal dëkk d'abord ensuite lu boole lu lu koy jox sécurité ndax ñug-ñugal ak lëndamaay loolu bokk na ci li nga xam ne si li dana tax insécurité développé ci am réew ko ñaawteef yi ñaaw ko def ko ñaaw ñaawteef yi également dana ci mën a profité pour pour def seen liggéey loola kon bu fekkee nañu taxaw ngir sàmm dëkk bi ngir mu leer loola tawfeex la éclairage. Là où passe l'éclairage public, l'insécurité trépasse. maanaam éclairage fu mu taxaw rek insécurité day daal di faatu day daal di daw ndaxte Samba Boy mi ngi opéré si béréb yi nga xamante ni bi c'est mal éclairé moo tax donc ñoom non seulement dañuy leeral dëkk bi waaye tamit bokk nañu tamit su ñuy xeex si wàllu insécurité bi aussi loolu nag ñu ngi leen si gërëm di leen wax ni en tout cas ñu ngi ànd ak ñoom si boobu opération seen mbébét parce que association bi nga xamee ni bi la ay taalibe murit ñoo ko samp di si def seen alal ngir dëkk bi tedd bi nga xam ne bi mooy Touba mosquée mooy Touba si wàllu boppam te kooku képp ki nga xam ne bi yaa ngi si liggéey liggéey bu rafet bi daal si am ngërëmal yàlla yonent bi daa si am ngërëmal sëñ Touba. di fàttali aussi ne boo bëggee xam 2000 wala 1960 lamp yi ñu indi nekk ñaari junni yu manqué ñeent fukk ban dayoo am boo ko doon installé ci distance su 30 mètres ndax lamp yi li ci ëpp ay 30 mètres lay am guddaay bi mën naa dem 60 kilomètres pour nga xam ni mu toll. corniche tubaab bi bu ngeen ko xoolee 16 kilomètres la 16 kilomètres yëpp boo ci defoon cinq 500 lampes day doy corniche bi yëpp te 500 lampes boo ko génne woon ci 1960 yi day mel ne boo ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj bi nga installé mu des yeneen ñetti xaaj yi pour wax leen quantité lampe bi nga xam ne moom la Touba ca ni mu toll. yamuñ ci tamit ndax euh, yéene ji mooy tàmbali ko ren. fas yéene mu wéy ndax gis nañ ne insécurité bi bari na trop ci dëkk bi te bokk na ci li ko mën a saafara mooy éclairage bu doy da cee bokk benn lañ élément essentiel la ci sécuriser dëkk bi yokk kaaraange gi fexe ba dëkk bi leer. liggéey bu am solo boobule nag ginnaaw bi Touba ci kanam jëndee yooyu la làmp muy leeral ne dina ko fas yéene ànd ak commune bu Touba ci wàllum installation yi. ba loolu tax mairie bu Touba wax ne lépp loo xam ne jumtukaay la buy mën a tax. ngir làmp yooyu yële mën a installé wu dina ci def loxoom bu baax a baax. loo xam ne si laaj na ko moom dana ci taxaw ba jël na euh, ay mécanicien euh, électricien yo yu qualifié yu ci ci ci nombre bu bu bëri mettre ko à la disposition muy équipe boobu également am na beneen euh, oto boo xam ne si moom la ñu am na zel moom moo ñuy permettre di mën di yéeg ci kaw poteau lampe yi di def ay réparation wala ñuy monter yooyu. mi ngi xam moom mettre na ko à leur disposition également nee na lépp loo xam ne accessoire la boo xam ne lii dana ko laaj pare na ngir jàpp ci bu wér a wér a wér ñuy gën a bëgg digganteem ak Touba ci kanam mu gën koo bàyyi xel bu baax a baax xam ne lépp lu Touba ci kanam yëkkati jëmee ko ci dëkk bi na xam ne moom moom monsieur le maire moom la waxoon ci dëkk bi kon nun moom lañ ciy jàppale ngir dàkk ci bëggu sëñ Touba kon lool itam ñu ngi ko ciy gën a tàllal loxo di ko xam na ne ko daal ñun lenn taxuñoo jug lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa ci dëkk bi opposé wuñ ko fekkuñu itam ab domaine am boo xam ne dañ koo dénk ñu di ko ca xatal li nu indi li nu fi tax li tax jug mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te fas yéene ko àndak moom ndax buñ ko dénkutoon lii it ab taalibe sëñ Tuubaa la te ñun taalibe sëñ Tuubaa yëpp lañ woo ci liggéey bi kon na xam loolu bu baax a baax te bàyyi ko xel xam ne lépp luñ koy wax ci Tuubaa ci kanam daal nun moom ñu ne fàng lañ amuñ lu ñuy nëbbu amuñ lu ñuy wax ci kaw di ko wax ci suuf li ñu itteel mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te ci yoon wu leer nañ ñi lañ koy def lu mu ci mën a doon it bala ñu ko def danañ ko waxtaane ak moom bañ bokk ci déggoo ci nii lañ koy defee fas dañu yéene itam nuñ xas déggoo lay tebbi ko moom du jóge ci nun waa Tuubaa ci kanam loolu it ko ko wax bu baax te jotal ko ko maire bu nekk tey jii bëggoon na am association bu mel na yéen pour mu ngeen mën ko jàppale si dëkk bi ndaxte euh, euh, commune yi dañuy xaw a am ay euh, seen doole day limité communes yi des fois aussi seen marché comme ni ko sëñ Xaadim Mbàkke waxee ñoom alal dernier public la dernier public nag doo lamb rek mel ni ku yore sa poche rek dem jëndi yéen Touba Ca Kanam yéen da ngeen yore seen poche da ngeen jóg rek lu leen neex ngeen dem jëndi sa àdduna bi andi teg loolu mooy avantage yu am ay association yi nga xam ne ay la lañu si commune yi en tout cas ñu ngi leen di féliciter si œuvre bi nga xamante bi c'est une œuvre gigantesque vraiment ñu ngi leen siy naw di leen ñaanal yàlla vraiment si fépp fi nga xamee ne bi seen i mbëbët la te mu ànd ak mbébétu sëñ bi yàlla na leen yàlla jàppale ba ngeen wuyoo seen dëkk wuyoo seen tur bi nga xamante bi moom ngeen di wuyoo mooy Touba sa kanam